الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فهذه هي أيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة فماذا نفعل لننال في هذه الأيام المباركة الأجر العظيم وما هو العجر العظيم الذي وعده الله عباده الصالحين المتزودين بالطاعات في هذه الأيام المباركة إخواني وما هو الواجب وما هو الواجب الوقت في هذه الأيام لنحول العادات إلى العباده ونحول الثواب إلى ثواب الأكثر mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dooli xéewal te musal ko mbokk julit yi ñoo ngi ci fukki fan ci weeru tabaski fukki fan yooyu nga xam ne ñu ne mooy afdalul ayaam moo gën a baax ci bis yi nga xam ne ñu ngi am yépp ci àddina fukki fan yi ñoo gën a baax ci bis yi comme fukki fan yi ñoo gën a baax war nañu jagleel fukki fan yi jëf yi gën a baax afdalul amal fi afdalil ayam fan yi ñu nekk moo gën a baax ci ay fan waaye kon jëf yiñ ci war a jëf moo war a gën a baax bépp jëf bu ñuy jëf kon dinañu laaj sunu bopp ne fa maada nafaal linanaala fi hadihi al ayam al mubarak al ajrul azim kon lan lan war a def mbokk jullit yi lan moo war a nekk sunu taxawaay lan moo war a nekk sunuy jëf ci bis yu màgg yi pour ñu am ay tiyaaba yu baree bari yu barkeel war nañu laajaar sunu bopp ñu ne wa ma huwa al ajru al azim alladi waadahu llahu ibadahu salihin lan mooy fay bu màgg bu rëy bu yàlla subhanahu wa taala dencal jaamam yu sell yi ana lan la ñu yàlla dencal ci bëccëg yi ñu nekk ci ay tiyaaba lan la ñu yàlla dencal jaamam yu baax yooyu nga xam ne ñoom ñooy ñi yóbbalu ñi ut yóbbal ci fan yii seen yóbbal nekk lan mooy topp yàlla ci guddi yu am barke yi ak ay bëccëgam kon mbokk yi ñetteelu laaj bi mooy wa ma huwa alwaajibu alwaqt fi hadhihi alayaam lan mooy devoiru lan mooy waru garu bi war ci fukki fan yi ñu nekk lan mooy ci waru gar lan lañ ci war a def lan lañ war a bàyyi mbokk yi ci fukki fan yi dana jaadu ñu soppeeku jóge ci ay aada jëm ci topp yàlla bàyyi aada bàyyi bidaa bàyyi shirk jëm ci tawxid bàyyi bokkaale yàlla jëm ci kennal yàlla bàyyi bidaa jëm ci sunna bàyyi aada jëm ci diine yàlla subhanahu wa taala jëm ci jaamu yàlla waaye fukki fan yi war nañ cee yaakaar ay tiyaaba yu baree baree baree baree bari bokk na tey ci seytaane ni mu gàllankooree jullit yi góor ak jigéen tey jullit yi seen jaamu yàlla yépp mooy lu ñu leen di fay léegi léegi léegi lu ñuy am intérêt léegi léegi ñu def ko léegi léegi boo nee ñaan bii de ku ko ñaan doo ñàkk dépasse ñépp ñu ne bindal ma ko fii ñaan bi de ku ko ñaan boo duggee ci oto doo accident ñu ne bindal ma ko fii sàngam bii de ku ko wax nangam ngay am ñu ne bindal ma ko fii waxal ma ko fii jàngal ma ko waaye jaamu yàlla rek pour yàlla moo la sant jaamu pour nga def ko déedéet kenn du ko def xoolal am na benn émission buy génn ci benn télévision du ma tudd turu télé bi émission baa ngi tudd rëg-rëg fan yi série bi ñu mujjee génne mooy benn buxaaba buy wax ci xaru tabaski mu ne xaru tabaski bee jën yi nangam lay jëriñ nefere yi nangam lay jëriñ lu nekk mu ne boo ci defee suufu sàngam wala nga takk ci nangam wala nga tibb ci nangam di nga am nangam dem sax bay wax buñ la tëjee ci kaso boo bëggee génn boo jëlee fàllara gi wala nga jël lee wala boo bañ a dugg kaso wala boo bëggee boo amee jigéen juy njaaloo boo jëlee buumu xaru tabaski lu nekk ndeysaan ñun dañu fàtte ne Sénégal chaque jour dañuy fàtte ne jaamu yàlla yàllaa ko santaane te yàlla lu mu waxul yonent bi waxu ko ku ko def da ngay sonal sa bopp doo ci am benn tiyaaba bàkkaar dong nga ci am mbokk yi fukki fan yi ñu nekk ngëneel yi ci nekk bi ci njëkk mooy fadlul asara al awail min zilhijja fukki fanu tabaski yi ñu nekk ngëneel gu ci gën a rëy bu ci njëkk mooy yàlla subhanahu wa taala dafa waat ci bis yi mu wax ci quran wal fajr wa layaalin ashr wa qad jaa fi tafsiri hadihi allayali al ashra ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والفجر وليال أشر قال العشر عشر الأدهى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النهر li ñuy wan ne fan yi dañoo màgg mooy yàlla giñ ci fan yi ci saar tuddee ko suratul fajr yàlla giñ ci wala yaali na ashr ci fukki guddi yi kon bëccëg yee màgg ba yàlla waat ci loolu moo ñuy wan ne fan yi dañoo am importance ndax yàllaa ci waat yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ñëw na ci tafsir hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam di firi aaya yooyu mu ne ashr mooy fukki fanu tabaski mu ne witr wala wal witr mooy yow mu arafa mooy bis bi ñuy taxaw arafa yàlla war a jàkkaarloog jaam yi mu ne wa shaf mu ne yow mu nëhr mooy bis bi ñuy rey xar yi mbokk yi ñëw na ci sunanul kubra bu xaakim ñu jëlee ci abdullahi ibnu zubayr mu ne layaalin ashr al asr al samaan wa arafat wa nahr jëlee nañ ci sunanu alxaakim mu ne yonent bi nee na fukki fan yooyu yàlla di giñ mooy fukki fanu tabaski ak bisu arafa ak bis bi ñuy rey xar yi ñaareel bu ñuy won ne fan yi dañoo màgg fan yi ñu nekk mooy yàlla dakaa tudde ci alquran ayaamun maalumaat wallati jaat fi qawlihi taala wa yazkuru sma allahi fi ayaamin maalumaat suratu hajj qala ibnu abbas radiyallahu anhu wa ardaahu ayaamun ashara wallati yushrau fiha wa yustahabu al iktharu min zikri llahi taala borom xam-xam yi nee nañ lu tax fukki fan yi màgg ñu ne yàlla moo ko tuddee bés ya ñu xam ibnu abbas ne bis yooyu ñu xam yàlla di wax ci quran mooy fukki fanu tabaski mu ne danañ yoonal danañ sopp tudd ci yàlla lu bare bare bare bare bari loolu moo tax bis yi màgg mbokk yi ñetteel bi wan ne bis yi dañoo màgg mooy afdalu ayaami dunia bés yi ñu nekk moo gën ci bisu àdduna yi bisu àdduna yi li ñuy baax baax baax baax bés yi ñu toll moo gën ci bisu àdduna yi loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko nettali ci hadisu jabir mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal afdalu ayaami dunya ayaamu ashara yaani ashara zilhijja qila wala mithluhunna fi sabilillah قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عرف وجهه في التراب yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bés yi moo gën a màgg ci bésu àdduna moo gën a baax ci bésu àdduna mu ne bés yooyu yàlla naan moo gën a baax ci bésu àdduna mooy bésu fukki fanu tabaski mu ne bés yi amul lu leen gën a màgg lu dul bés boo xam ne jullit xëy na ci rëpp jëm ci suuf yow day bis boobu nga xëy teg sa jë ci suuf su jootal ko yàlla bis boobu mooy bis bi gën a màgg ci yow nee na lu dul bis boobu amma lu dul loolu fukki fanu tabaski ñoo gën ci bis yi mbokk jullit yi mu ne war nañ cee góorgóorlu bu baax a baax ci jaamu yàlla war nañ cee tuub sunuy bakkaar ndax ñu jege ci sunu boroom subhanahu wa taala ñeenteel buy wane ne fan yi ñoo gën a baax ci fan yi mu ne fiiha kathirun min manasiki lhajj ci la ñuy def jëf yu baree bari ci ñi aji makkatal mukarram ci la ñuy def lu baree bari lu mel nan lu mel ne fanaan musdalifa lu mel ne taxaw arafaat bésu altine la lu mel ne hadiy loj rey lu mel ne sànni jamra lu mel ne watu lu mel ne wàññi lu mel ne wër kaaba gi mu ne yii jaamu yàlla yi ci fukki fan yi lañ koy def waaye ca makkatal mukarrama juróomeel buy wane ne fan yi ñoo gën a baax ci fan ijtamaa ummahatul ibadat fiha mbooleem ndey jaamu yàlla yi ci fukki fan yi la daje fukki fan yi danañ ci julli danañ ci woor danañ ci saraxe danañ ci aj màkk danañ ci jàng alquran lépp looy xalaat ci wàllu jaamu yàlla fukki fan yi danañ ko ci def moo tax fukki fan yi ñoo gën a baax ci fukki fan yi nekk ci àdduna bi yépp qaala alxaafis ibnu alxajar rahimahullah والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الهجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه فهي الصلاة والصيام والصدقة والحج gis nga nee na boo boo xoolee ndeyu jaamu yàlla yépp dañ leen di tënk ci fukki fan yi danañ ci julli danañ ci woor danañ ci saraxe danañ ci aj aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان fukki fan yu mag yi nu nekk muy fukki fanu tabaski nit ñi war koo jubloog jaamu yàlla subhanahu wa taala ak waaj préparé tabaski ñu xam ne bëccëgu feet la waaye feet la boo xam ne yàlla moo nu ko tànnal tànnaluñ ko sunu bopp moo tax jullit yi war koo fonk ñaari feet ci yàlla la bàyyeekoo ñëw ci ñun waaye ñun tànnaluñ ko sunu bopp ginnaaw jaamu yàlla boo jaamu yàlla mu pare yàlla wax la bëccëg yi nga màggal ci nga màggal ko ci nga feetu ko waaye ci ñun jàpp nañ ne feet mooy lekk yàpp feet mooy solire yu bees feet mooy fecc woy naani def lu bon daan ne feetu naa ci ñun ñu bare bari loolu lañ jàpp feet feet fekk li ci war mooy al ijtihaadu fil amali salih ñu góor góorlu ci góor góorlu ci ay jëf yu baax jëf yu baax yoo xam ne mooy tax ëllëg allahu subhanahu wa taala bég ci ñun dugal ñu aljanna mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci bëccëg yi daana ci santaane koor ku ajiwul woor ku ajiwul ban bëccëg la ñuy woor ci fukki fan yi ñu nekk mooy bisub juróom-ñeenteel te mooy bisu arafaat te mooy altine waaye xam ngeen li ruslu tey ci réew mi mel ne Sénégal nekk sunu réew mooy woor lëndi tabaski àllarba te yonent su taxawoon arafaat suba day tabaski benn fan bi fi dox ci diggante bi mbokk jullit yi yéen ñi am xel yu dul far-far loolu ko fi dugal te ñun ak màkk rawante wu ñu bis de trois heures de temps la ñu rawante waaye trois heures de temps boo xam ne tey jii fii nu nekk bisu ajjuma la adduna bi yëpp tey la ajjuma lu tax ñun xaaruñu ba suba ñu julli ajjuma comme màkkaa ngi julli tey ajjuma lu tax ñun waxuñu tey dañuy bàyyi ba suba ñu julli ajjuma parce que bu ñu bàyyi ba suba rek julli samedi kon amuñu ajjuma kon lan mooy waxu woor lëndi julli àllarba yéen borom xel-xel yi farfarloo yéen borom xel yu set yi xool leen lii ñi nga xam ne seeni xel duñu farfarloo far ñu fenn lu dul yàlla ak yonent la ñu far yonent bi yàlla yónni woon moom de moo ñu doon leeralal woor juróom-ñeenteelu fan ci weeru tabaski ban tiyaaba ngay am ñu jëlee ci yaay Aïcha mu ne yonent alayhi salaatu wasalaam day nee na képp ku woor bésu arafaat yàlla jéggal na la bàkkaaru ñaari at kon képp ku rep ba altine raw la nga naan da ngay woor arafaatu Sénégal Sénégal amuñu arafaat ñun leen saa ngi dëkku ne ñun sunu arafaat yéen fu ngeen jëlee arafaat ñan ñooy yéen benn arafaat dong mu am ma nga ca makatal mukarram ma nga ca montagne fa la Moustapha taxawoon sallallahu alayhi wa sallam ca naaj bu tàng ba di xutba sahaaba yi xool ko ñaq bi di walangaan ci yaram bi ndax tàngaayu jant bi kenn ci ñoom daa di jël kaalaam tekki ko ñeenti nit daa di ñëw ku nekk téye benn catu kaala gi ñuy keral Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci pey bu sell boobu foofu la yàlla di jàkkaarloog jaam ñi fa la jaam ñi di yendu altine ba ngoon ñu boole fa tisbaar ak tàkkusaan timis xaw leen fa dab ñu jubal jëm musdalifa fanaani fa boole fa timis ak gee nañu xam ne diine du lu jógee Sénégal de déedéet diine jógewul Sénégal de amul kenn ku nekk Sénégal ku yàlla yónni yàlla Muhammad la yónni woon Muhammad moo doon jàngale diine ji yonent bi nee na weer wii nu nekk juróom-ñeenteelu fan bi la nuy woor muy arafaat te altine la jullit yi taxaw arafaat bisu talaata nekk bisu tabaski loolu mooy diine mooy li yonent yàlla muhammad indi woon lu keneen indi woon nag loolu mbiri boppam la li yàlla wax ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax loolu lan leen yeggee yal na yàlla won ñu dëgg wërsëgal ñu topp ko yal na yàlla won ñu neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokk jullit yi beneen bi mooy bëccëgu tabaski nañu xam ne xar mi ñuy rey xar mu ñuy jaamoo yàlla la du xar mu ñuy puukarewoo léeg-léeg nga gis bëccëgu tabaski bu ñu xëyee xar yi ci buntu kër yi lañ leen di takk ci buntu kër yi lañ leen di takk ñëpp rangale seeni xar ci buntu kër yi lu ko waral est ce que ku ci gënoon tuuti la di nga ko génne est ce que ku ci amoon béy di nga ko génne teg ko ci buntu kër gi est ce que ku amul woon xar yi lu ñu ut ci buntu kër yi wanewu kese ku nekk bëgg a won sa bopp sa morom ne koñ bi wala mbedd mi wala sama dëkkandoo yi maa leen ëppale nañ ci génne bakkan sunu jaamu yàlla nañ ci génne bakkan na nekk ngir yàlla dugal ko sa biir ci biir rey ko foofu fees ko foofu defal li ci yàlla wax kooku benn la ñaareel mooy xar mi buñ koy rey kenn du ko jàppal ndax xar mi yoonam nekkul ci jàpp waaye da ngay dégg ñu ne jàppal leen xar mi ñu indi ndox di raxas tànk yi la ilaha illallah inna li xar mi lu yoonam ci jàpp sunu benn xarit ndeysaan dafa ne woon papaam xar mi kenn du ko jàppal de papa ji ne ko noppil ñu indi ndox mi xam naa dafa sedd ñuy raxas xar mi jë- raxas tànk yi ne dañuy raxas kanam gi xar mi daa di saw mu ne papa njàpp mi toj na de yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ñaareel bi mooy buñ koy rendi duñu tudd turu kenn allahu akbar bismillah allahu akbar allahumma inna hada minka wa ilayk bismillah allahu akbar allahumma inna hada minka wa ilayk nga daa di rendi boo koy rendi day jublu penk nga tudd turu yàlla bu la kenn la ngaamu léeg-léeg nga dégg ñu ne waaw buñ koy rey ana taawu kër gi ana soxna si ñu ne waaw ñu ne da ngay jàpp ci ndiggu góor gi taaw bi daal di jàpp ci ndiggu yaay ji keneen ki ci topp ñu daal di def benn seen jëm mbedd ma yal na yàlla jubal bu nu reyee xar mi ba pare nga gis ñuy tànk ci deret ji ñii di capp ci deret ji di def seen jë loolu sobe la yow jàngu leen xanaa xanaa déggu leen ñu ne deret sobe la deret bu la laalee lu ëpp juróomi dërëm sa njàpp yàqu na jànguñu loolu xanaa deret sobe la ñaari deret dong ñoo dagan muy res ak gàddaam ñaari yooyu rek ñoo dagan yeneen deret yëpp dañoo araam bu la laalee sa njàpp yàqu na lu ëpp juróomi dërëm beneen bi mooy loolu sobe la nga jël sobe di ko def sa jë beneen bi mooy loolu nga def sa jë bokkaale nga yàlla kenn du denc béjjén yi kenn du denc wey yi kenn du tibb ci nefere bi kenn du digg denc geen gi yooyu ay bidaa la yooyu ay shirk la xar mi yàlla rek rek rek moo ko moom moo tax moom yàlla mu ne lan yanaala allah luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum soxlawuma yàpp bi soxlawuma deret ji soxlawuma kawar gi li ma soxla mooy ragal yàlla gi la poussé nga rey ko kon xar mi nañ ko rey ngir yàlla nañ ci génne puukaréewu nañ ci génne ngistal nañ ci génne bokkaale na nekk ngir yàlla li ajlillahi subhanahu wa taala allahuma اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ñu tollale sàppe yi mbokk yi fakk diggante yi allahu akbar
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات دبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لهب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وهسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام